waaw ba léegi ñu ngi fii ci Masalikul Jinaan jumaa ji di waajal inauguration bi suba incha allah le 27 donc ah ku ne Masalikul Jinaan nag wax nit wax maanaam li fi am ci nombre de personnes maanaam kenn xamatu ko ñun nag ñi ngi fii ci biir jumaa ji di dox sunu tànk ba daj ki ñu daj nag wax dëgg yàlla ba sedd suñu xol muy na amar Mbacké ku ne Seydina Omar Mbacké di sët ci Serigne Touba Khadim Rasoul Seydina Omar Mbacké di borom benn tali di borom ñaari tali di borom Grand Dakar ñu fekk ko benn wóolare mu taxaw ak moom di ko nuyu di ko ziar di ko jox wàccuwaayam dinaan la Mbacké ziar nañ la nanga nga def kay Cheikh bi maa ngi delloo ziar bu baax a baax kay ba eh, yéen ci jàmm bu baax di leen ziar bu baax di leen ndokkale ci xew-xew yi nga xam ni moo ngi eh, am boobaat léegi lépp di eh, sant Serigne Touba rek ndax yàlla dogal na ne moom xolu murid yëpp sedd nañ xolu taalib yëpp sedd nañ Serigne Touba moom wax dëgg yàlla malaka la dunya wa uxra maa indahum lixtaaruhu Muhammadu waaw ba mu ne sunu borom mën na ko àdduna ak àllaaxira boobaat léegi ñoo ngi ciy teg sunuy bët. te eh, olof dafa ne ku la ñeewul fii du la ñeefee te sëñ Touba teral nañu fi te fee koy dàq kon ñoo ngi ñaan ci barke sëñ Touba ni xol yëpp seddee yàlla na tawféex yëpp wàcc ci réew mi Sénégal ak fépp ci àdduna bi eh, sunu borom defal ñëpp ñu am jàmm. barki seexul xadim barki barabu masaliku dinaan bi nga xam ne ku fi dugg soxol sedd te warkal la xam naa ne si nga laat moom yaakaar naa ne moom mooy gën a mën a waaw loolu neex na Mbacke sax ñaan dong lañ soxla soxla wuñu leneen ah kii nag euh, dama koy bàyyi mu présenté wu xam ni ku waaw waaw Cheikh Abdou Lahad xamul ti dégg nga ko donc di jox micro bi di nuyu tamit diko ko bëgg a laaj solo bés bi ak ki waral bés bi mooy Cheikh Sidi Mokhtar mi nga xam ne moom moo làqu bu yàggul dara ñu ngi lay bàyyi Abdou Lahad nga présenté wax ñu kan mooy Cheikh Sidi Mokhtar. aouzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala man ursila rahmatan lil alamin sayidina wa nabiyina muhammadin il makkin wa ala alihi wa ashabihi wa ngi nuyu mbokki taalibe yi leen ziyaare bu baax bi suñu soppe bi suñu xarit bi di ziare it uh, uh, mboolem ñi nga xam ne ñoo teew ci barab bi yëpp mu mel ne tey bis bu màgg la bis bu tedd la bis bu kawe la bis boo xam ne it man nañoo wax ni ndamul diine la waaye ndamul islam la waaye ndamul umma seexul xadim bi yëpp la tey jii ngeen ñëw ànd koog ñun te mu wóor nañu ni ngërëmul sëñ Tuba àdduna ak alaxira mas nañ ko wax sàkkoo ci bis bi amee ko ci bis bi bila shakkin mu mel ne kon tey da laaj kan mooy Cheikh Sidil Mokhtar ah sëñ Sidil Mokhtar bu baayam da koo fàgguloon ndax baayam kenn ku nekk xam na position bi nga xam taxaw na ko digganteem ak sëñ Touba ndax moo ne woon sëñ Touba busraaki yaa arda Touba yow ma nil taala kullal bilaadi bi haasa cheikhi kulla ula huwa alxadimu la si najjal muridina min kaydil maridi fa asu suhla wal amala baayam moo waxoon ni yow suufu Touba maa ngi lay ñaan te xam ne yaay ki gën ci suuf gi ginnaaw bu màkk jàlle Madina jàll suuf si gën a tedd ci yi mooy suufu li la may loolu nag mooy denc nga denc ci biir ki gën ci mbindee fi ginnaaw rasulullahi mu cheikhul xadim kooku nag mooy allah ji baara doomam nag di cheikh Sidi Muxtaar mi nga xam ne mooy septième xalifa Serigne Touba doon septième xalifa Serigne Baara jël 17 milliards def ko ci jumaa yi Masalikul Jinaan 7 milliards mu def ko ci jumaa yi Touba ba noppi taxaw taxawaayu taalibe yëpp ngir ñu xam kan mooy Serigne Touba kooku ngir ma laaj dinaa ñëw te dafa fas naa ci yaatul ba yaatoo yaatu incha allah. mooy ñu doon euh, wax jaar-jaaru Cheikh Sidi Mokhtar Cheikh Sidi Mokhtar li mu fi def yaa ngi tudd ba set yi dugg nombre 17 milliards yi mu doon ay set set kiraama Cheikh Sidi Mokhtar duñ ne kiraamaam sax mais nga laal ñu tuuti ci Cheikh Sidi Mokhtar ngir ñi seetaan euh, rajo bi ak ñi an télé bi xam tuuti ak ñi nga xam ne maanaam dañ koo réere woon mën koo xam ndaxte tey moo wéral bés bi moo wéral guddi gi maa ngi lay jox kàddu xam nga foofu liñ ciy wax mooy sëñ Tuubaa daan doon rasulullahi alayhi salatu wasalaam ci ay xolofaam yu koy toogal moom moo leen tànnal boppam xam nga boo gisee sëñ bi dañuy lil Moustapha na waytu waytumaa yu jaddidu sunnatahul xara wa indi ahmadu maanaam sunna si yonent bi alayhi salaatu salaam indi woon muy ab tool mu di ko bay loolu laa ñoom ngir sëñ Tuubaa ngir yeesal ko bokk na nag ci gi ko xiwtu ci xilaafam moom sëñ Sidi Muxtaar bokk na ci wuutu sëriñ Tuubaa ci ak xilaafam waaye li ci gën a yéeme ci biir xilaafa gi mooy bi mu toogee wax ji mu wax moom sëñ Sidi Muxtaar moom moo ko mas a wax ci ku wuutu sëñ Tuubaa te mooy sëñ Touba moo dugg sama jëmm ji waaw loolu moom moo ko mas wax ci ku mas a toogal sëñ Touba mel na moom moo ci mas a jël benn engagement boobu ni sëñ Touba moo dugg sama jëmm ji. bokk na ci li nga xam ne ay karamam la yoo xam ne daf na ko ñëpp teg ci seen bët mooy yëkkati nga xam ne yëkkati na ko ahlu xasida te sëñ Touba mbooleem la mu am. ci xasida la ko amee te sëñ Sidi Mokhtar dundam gépp ci xasaayit la ko defoon nga xam ne mboolem ñi ko doon yëngutu ci ñoom ñëpp kenn ku ci nekk am nga martaba ak daraja joo xam ne boo ko masaan a gis saron ko day tuur ngir bëggum bëgg xasida ak fu mu tegoon sëñ Tuubaa mboolem jànkati xasaayit yi fi mu toll ñëpp kenn ku ci nekk am nga relation bu mag boo xam ni am nga ko ak moom ngir moom bëggum bëggoon xasida ak yitte gu mu joxoon xasida pàcc bi it boo xoolee yéen a defoon sëñ Mbakke fee wax na ko léegi yëkkati na àllam ji bari def na ko ci ba noppi woo ko ci bokk xamal ko ne nag ouverture yi man du ma ko fekk loolu nag mënut a weesu karaama ndax kenn ku nekk xam na ni xamaloon na ko ni ubbi gi du ma fi fekk waaye nag lii barke la naa ko ci liggéeyal ko Serigne Touba te Serigne Touba daa waxoon ni waq di la siinat daamu fi xidmati wa hablahum maaraam maanaam fayal ma ñi nga xam ne ñoo may liggéeyal li ñuy sàkku àdduna ak alaxira lépp na nga leen ko jox te jox leen ko joxen wu sell loolee nag bokk ci ña ko sëñ Tuubaa fay mooy sëñ Sidi Muxtaar muy pàkk bi waaw waaw akam mun wut suñu Muntaxa bis fi Ndakaaru zikran bihi xat ku kibal makar loolu dafa wax ni jamono ngi ñëw dinaa dugg Ndakaaru te su ma duggee Ndakaaru ki fay teew taxawaay bi samay taxawaay mooy sëñ Muntaxa maanaam loolu junj la ci sëñ Muntaxa Basiru moom wone woon ne moom mii kat mooy ubbi jumaay ji loola la ko sëñ Sidi Moxtaar waxoon na ko sëñ Muntaxa moom it tënkoon nañ ci ñoom ñaar ba mu xam ni liggéey bi moom mën na koo tàmbali waaye ku koy eggale mooy nekk Muntaxa te Muntaxa it boo xoolee turu yonent bi alayhi salaatu wasalaam da ciy turu am solo ci biir sëñ Muntaxa nag li ko ñoroon lépp lépp lépp mooy daa toppe li tax mu am loolu daa toppe ba xëy ñu topp ko maanaam daa muritu ba xëy doon ab sëriñ maanaam daa jël kol gi takk ko ci ndigg li ba mu ñëw mujj nekk ca waaw ñu ngi ñaan it liggéey bi mu liggéeyal Serigne Touba képp ku ma sa toogal Serigne Touba ci xilaafa gi yàlla na la Serigne Mountakha ëpp aw fan waaw yàlla na ko liggéey liggéey boo xam ni dina mucc ay adduna mucc àllaaxira am na ba noppi. asalaamaaleykum wa rahmatulah man it bëgg naa bu baax a baax. yàlla na leen yàlla fay maanaam maa ngi ziare bu baax di ziare. Talibé TV yëpp maa ngi leen di ziare di ñaan rajo Dakar international ñëpp maa ngi leen di ziare bu baax di ñaan. yàlla na dem ba ñëpp di ko dégg ci barke ubbi teg Masalik gii barke sëñ Tuubaa barke Cheikh Anta borom Daaru Salaam waaw kookoy sunu waaye eh, Abdou Lahad doon ko waxtaankat koo xam ne ku min taarixu Sëriñ Tuubaa di ko jaajëfal wax ji rafet na donc du yaakaar dara ñu dugaat ci biir xoolaat yeneen waxtaankat yeneen kàngam ñu mel nii parce que ñi leen soxla Abdou kontaan naa yal na yàlla fay jërëjëf Paar <laughs>